képp ku fi teew ci turum ak santam di ziar suñu sang yi fi nekk yépp ko jaarali ci sëñ bas euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yépp sang nekk suñuy sëriñ mu mel kon sëñ abo ni nga ko waxee léegi waxtaan bi ñi ngi ko bëgg a tënk ci politique naka la ñu mën a defee ba mu indi ak duggante ak jàppalante ak mbokkoo ci biir penc mu mel ni waxtaan bi loolu moom mooy solo manam bu ñuy def politique warul nekk loo xam ni day indi féewaloo day indi ak jaxasoo day indi xiiroo ak ŋaayoo waaye mu mel ni waxtaan bi mi ngi jublu ci naka la ñu mën a defee politique ba nga xam ni buñ koy def ak buñ ko defee ba pare tamit li nga xam ni moom lay indi mooy ab pénc bu gën a amub juboo bu gën a am ak mbokkoo bu gën a am ak dugalante loolu nag ñun yenn saay bu ñu woowee waxtaan dafa mel ni dafay am problème moo tax ñu woote waxtaan woowu maanaam bu fekkoon ne politique moom indiwul benn problème jàmm ak salaam rek la indi kon xëy na waxtaan wi kenn du ko def donc bu ñu bu ñu indee waxtaan bu mel nii c'est dañoo dox ba jëmm jamono mu mel ni fi ñu teg suñu tànk nar teg ay jéego di fa dem ci mbirum politique bu ñu xoolaatul bu baax a baax a baax mën na indi ak féewaloo ci njaboot ji te ñu jàpp ni njaboot ji moom benn njaboot la euh, kilifa gi benn kilifa la kon euh, war ñu mën a tasaaroo donte nag bu ñuy def politique ku nekk mën nga am fenn foo bokk. waaye bu loolu weesoo ñu jàpp ni njaboot ji benn la ñu jàpp ni jubluwaay bi benn la dafa mel amna am na yenn ay jafe-jafe yu ñuy am foofu mu waral euh, waxtaan wu mel nii bu fekkee da nga dellu ci baat bi ci baatu politique baatu politique grec yi grec yi ñoo indi politique politique likot nyom linko linko liñ ko liñ ko jox euh, comme sens li koy tekki moom luy defar pench, loolu mooy politique ci grec yi wala luy politique bi ngeen di defar Euh, Kalama bobo, lan ngeen lan ngeen ci wundoon lan ngeen ci jublu woon mu ni ñu ni ñoom liñ ci rek luy waaw dañoo dem ci principe bu doomu aadama mënul dund moom kese Ben borom xam-xam bu mag boo xam ni dafa bokk ca ñoom ñu wax platon mi nga xam ni mi ngi dund ñeenti téeméeri at balaay yonent isa salallahu Alaihi Wasallam sallam di ganasu àdduna mom platon momu nek ben borom xam xam bu mag bo xamni mom tubab yek grec yek jamono joju dañ ko nawon lol mu bindon lu meut euh 36 livres manam fanweri livre ak juroom ben bindon nako jamono joju nga xamni balay yonent yalla isa di gëna ci aduna mom mom bind na lol mom platon bobu neena wet yalla rek la jik neena wet yalla rek la jik neena doomu adama wet jiguko ndax dafa soxla moroomu doomu aadamaam pour dund nee na doomu aadama lu mu mënti am ci xam-xam ak lu mu mënti am ci am-am dafa soxla moroomu doomu aadamaam ndax moom kese munul dund moom kese ba pare li jën ci problème yépp bu amee alalit mu ni soxla na maçon pour tabax këram bu amee alalit mu ni soxla na mécanicien pour defar otom bu paane bu demee alal bu amee alalit soxla na keneen ak keneen tailleur ba koy ñawal la muy sol ak yu demee noonu mu ni kon dafa mel ni ñun li ñu jik ñun doomu aadama Momo moy jëflante ci suñu ay biir mu ni mais bu fekkee ni wéet rek lañuy wax ko xamni ni soxlawul kenn ko xamni ni moom jignako néna koku yalla suñu borom rek ko platon mom mo bind lool ñent téeméeri at bala yonent yalla isa di gane su aduna néna yalla dongu la jig doomu adama mom wéet jidu jigu ko foo muy jëflante mu ni jëflante bi muy jëflante dafa nekk ci ñaari dafa nekk ci ñaari anam bu ñëk mom moy li nga xamni ay mamam yi fi nekkon mom lañ ko fi bayil mu koy jëriño te mom mënul bàyyil dara maamam yooyu fa nekkoon ndax maamam yi nekkatuñ fi maanaam ñi nga xam ni ñoo ko jiitu euh, ci àdduna am na lu ñu liggéey bàyyil ko ko fi lu ñu liggéey bàyyil ko ko fi ci mbirum am amu àdduna waaye lu ñu liggéey bàyyi ko fi tamit ci ay xalaat ci ay jikko gi demee noonu bàyyil nañ ko ko fi muy loo xam ni dafa koy jëriñoo loo xam ni dafa jóge ci maam yi ñëw ci moom nee na beneen anam bi mooy li nga xam ni moom lay jëflanteek ñi mu dëkkal ñi ñi nga xam ni ñoom la euh, ñoom la séqal àdduna bi ni muy jëflanteeg ñoom nee na ci kaw loolu yëpp nag li muy firndeel mooy doomu aadama bi faw muy jëflante dina jëflanteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fi jiitu dina jëflanteeg ñi nga xam ne ñoom la maaseel dina dem ba jëflanteel ak ñi nga xam ni sax ñëwaguñu ndax ñoom it faw ma waajal leen am lu ma leen fi bàyyil li ma leen fi bàyyil ci ay xeetu xalaat ci ay xeetu tëralim euh, ci ay xeetu jëf yu rafet yoo xam ne dama leen ko fi bàyyil ñoom bu ñu ñëwee ci loolu la ñuy sukkandiku pour mën a def ko àdduna pour mën a def seen dund kon daal moom Platon boobu li mu jàpp mooy doomu aadama mënul wéet wéet jigu ko wéet moom nee na yàlla rek la jikk doomu aadama yi dafa soxla moroomu doomu aadamaam moo tax ñu ni kon politique bu fekkee ni dañ koo déggu bu baax mooy diggante nit ñi noonu ñuy jëflante naka lañ koy mën a defaree ba mu gën a jekk naka lañ koy mën a defaree ba mu gën a rafet benn boroom xam bu ñuy wax Pierre Clastre moom nee na bu njëkk nit ñi dafa am nu ñu doon organiser seen pénc nee na ni ñu ko doon organiser mooy ka ëpp doole moo daan jiitu ca pénc ba ndax moom moo ëppoon doole ñëpp. bu ko defee ñëpp lay noot ka topp ca moom ci doole taftal taftal du ci ginnaawam maanaam Pierre Clastre boobu moom dafa ni njiit ci jamono yu njëkk ya ci jamono yu njëkk ya njiit daal mooy ko ëpp doole mooy ko ëpp doole moo fay ëpp sañ-sañ moom mooy wax ni yoon wii la ñuy jaar ñëpp ca yoon woowu la ñuy jaar par la force ndax daf leen ëpp doole mu nit dañoo dem ba jëmm jamono nit ñi xam ni loolu du wéy ndax ki nga xam ni moo ci ëpp doole dooleem jooju tamit du wéy dina dem ba jëmm jamono dootul amati doole dina dem ba jëmm jamono feebar dugg ko doole ja mu amoon dootu ko amati nee na bu boobaa nag nguur ga mu yore woon day jeex ndax comme nguuram gi moom ci doole rek la ko teg bu demee ba doole ga jóge fa nguur ga dootu fa ne Pierre Classe mu ni noonu la doomu aadama yi daal di bàyyi loolu daal di bàyyi ni ko ëpp doole rek na jiite ñun ñu ñu ni nañu xool neneen nu ñuy def mu ni neneen ni ñu xool mooy pexe bi ci topp mooy nañu xool ci ëpp pexe comme léegi doole teg nañ ko fële léegi nañu xool ci ñun ki nga xam ni moo ci ëpp pexe mën a nax ñëpp nag muy wax pexe fii mooy pexe boo xam ni <laughs> pexe naxaateel maanaam ki nga xam ni moo ëpp pexe mën a nax ñëpp nañu fexe ba kooku ñu jiital ko ndax comme moom am na xelu nax nit ñi mën nañoo nax ñu nekk ci jàmm nee na ñu jublu ci loola di jiital ka nga xam ni moo ëpp pexe am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Nicolas Machiavel euh, bind na benn téere moom italien la euh, bind na benn téere bu tudd Le Prince di wax ni kuy jiite réew boo bëggee yàgg ca njiitu réew ma boo bëggee yàgg ca bopp réew ma faw nga nekk koo xam ni ku ami pexe nga doon mu ni faw nga nekk ku muus foo nga nekk ñaw foo nga nekk ku mën a nax nit ñi moom Nicolas Machiavel loolu wax nee na ku mënul naxaate mënoo yàgg ci nguur nee na ku mënul naxaate mënoo yàgg ci nguur ki mën a naxaate nag ci yéen ki ci gën a mën a naxaate nee na mooy ki ci gën a yàgg waaw kon mu mel ni bi ñu jëlee doole bi ñu ko fi jëlee dañ fee teg beneen mbir bu xaw a doy tamit mooy naxaate mu ni boobu tamit dañoo dem ba jëmmi jamono ñu gis ni mënatul wéy ndax nee nit ñi boo leen naxee dinañ dem ba jëmmi jamono tamit nag ñu xam ni da nga leen di nax bu ñu demee ba xam ni danga leen di nax te yow ci nga tegoon sa nguur nee na bu boobaa nguur gi dootul nguur gi dootul mën a dox ndax nit ñi la nga doon def xam nañ ko mu ni bi ñu demee ba xam loolu lañ ni kon nag doole amul doole euh, amul mucc naxaate amul mucc nañu wut beneen pexe ñu ni pexe bi ñu wut nag mujj gi mooy ay idéologie maanaam léegi nañu toog ñu nas ku nekk daan ni man daal damaa yaakaar ni àdduna bi buñ ko dëkk bi buñ ko pénc mi bu ñu ko wéeree ci yoon wi dina dox nga dem nag naxante waxtaan ceeg nit ñi ba ñu déggook yow ci yoon woowu nga jàpp ni buñ ko ci jaaralee dina dox léegi nag yoon yooyu dafa am ñu leen rëdd bind ko fi bàyyi ko fi yoon yooyu moom mooy communisme socialisme ñoom lañ ci gën a xam moom mooy capitalisme libéralisme mooy yi ñu doon wax jamono yooyu ay maoïsme ay trotskisme ay léninisme mooy yoon yu fi nekkoon léegi nag yoon yooyu yëpp dama leen di tënk ci ñaari poñ rek ndax deuxième guerre mondiale bi mu jeexee 1945 ñi ëppoon doole ci àdduna bi dañoo daje ci benn conférence bu mag bu ñuy wax conférence de Yalta bañ fa dajee ñu ni léegi àdduna bi nañ ko organiser waaye léegi ni ñu koy organiser mooy ñaari bopp lay am maanaam ñaari yoon lay am benn bi moom mooy socialiste communiste yi beneen yi moom mooy capitaliste yi libéraux yi mooy ñaar yooyu socialiste yi communiste yi ki leen jiite woon jamono jooju mooy Union soviétique ñi nga xamni ñoy euh, libéraux yi di capitaliste ki leen jité won jamono yoy moom moy états-unis moy amérique motax union soviétique ak amérique nekkon ño xamni ñom ño ñoo ëppoon doole ci aduna bi nak ba pare jàkkaarloo daawuñu xeex nag waaye jéeg déggoowuñu won ci dara ci ñi doxalé aduna bi soviétique ñom communisme lañu jital ak capitalisme euh, communisme ak socialisme dañu ni ñom dañu ne ni ñi doxalé suñu aduna ni ñi doxalé suñu aduna yoonu yàlla newu ci ñoom communiste yeeg social dañ ne bañ nañ ko ba seen dëkk ya sax jàkka ak ay église ak yëpp dañ ko faa tere woon nee nañu ni ñuy doxalee suñu àdduna yoonu yàlla newu ci boo ne leen waaw lu tax ñu ni ndax ñoom nee nañu gëm nañu fu diine ñëw ay wuute day am ci digg eh, ci nit ñi day am ñoo xam ni dañoo bari leen lool am ñoo xam ni dañoo ñàkk lool te ñoom loolu lañuy xeex dañoo bañ nit ñi am ay wuute yu bari ci seen diggante rawatina ci mbirum koom. léegi bu ko defee ñu ni kon nañu fexe ba ci biir pénc bi ñëpp nañu xaw a tolloo ci mbirum koom bu ñenn ñi am lu ëpp ñenn ñi yées le ba mu ëpp te nee boo ci dugalee diine rek ñoom li ñu gëm mooy bu diine bu fa duggee rek dina am ñu bëri le ba ëpp am ñu ñàkk le ba ëpp parce que nee na diine moo leen di gëm loo ni ñàkk ngeen ñi ñàkk diine moo leen di wax nangu leen seen nàkk ji yàq ñàkk ji yàlla moo leen ko teg ñi am yàlla moo naan leen li ngeen am euh, jëriñee leen ko yàlla moom moo leen ko jox nee na donc ñoom li ñu gëm mooy diine fu mu dugg day gën a yokk euh, wuute yi am diggante nit ñi rawatina ci mbirum koom moom loolu euh, la communiste yi ak socialiste yi doo dawal donc nañu fexe ba li nga xam ni mooy mbirum koom ci réew mi ñëpp bokk ko ñëpp tolloo ci la ñuy yem waaw bu ñu nee kii dafay ëppale kii dafay wàññile kii et cetera te nee na loolu boo ci dugalee diine bu duggee ci penc mi rek commencé indi ay wuute ci nit ñi communiste yeeg socialiste yi loolu lañ gëmoon loolu tamit moom la ñu doxal ba 1989 dinaa ñëwaat léegi ci 1989 capitalistes yi ak libéro yi ñi nga xam ne américains yi ñoom ñoo leen jiite ñoom comme ni leen si ni ko seen tur euh, wundee ñoom capital la ñu gëm maanaam am-am maanaam nee nañu ñoom nit ki moom lu mu mën a fàggu rek na ko fàggu waaye ki nga xam ne nag amul dara bu ñu ko jéem a dimbali trop moom ñoom gëmuñu ak ndimbal ñoom dañoo gëm ni ki ñàkk dafa yaafuus donc dafa war a góor góorgóorlu pour am ñoom bañuñu wute am ci diggante nit ñi maanaam ki nga xam ne dafa am lu bëri dañuy jàpp kooku dafa góor góor ba am loolu ki nga xam ne amul dara dañoo jàpp ni dafa yaafuus moo tax ay politique de solidarité yu demee noonu capitalisme du ko xaw doxal moom li mu doxal mooy góorgóorlu leen rek ba fexe am lu bëri na ngeen tabax ay usine na defar ay pexe na ngeen wuti tool fexe la leen daal ba dajale xaalis bu baree bari bari bari ñi nga xam ne dajale yu dara dafa xam dafa nekk ñoo xam ne comprendre ñu dara te dañoo ñaari modèle yooyu de ñoo tënk àdduna bi ba daanaka jamono jii may wax ak yow bi ñu yegsee 1989 ku ñuy wax Gorbatchev moom moo nekk euh, président fële ci Union soviétique mu commencé doxal benn politique bu ñuy wax perestroïka ak glasnost daal di dem wàcc ñoom communistes yi la ñu gëmoon nee naa leen léegi communistes yi ñoo waxoon nañuy doxalee suñu àdduna yoonu yàlla nekku ci ñoom ñu mujj bàyyi loolu wàcc loolu dem fekki américains yi ca la ne moo tax américains yi daal ni kon léegi ñun ñoo moom àdduna bi ndax suñu noon bi nga xam ni moo fi nekkoon jàkkaarloog ñun di xeex ñun léegi dem na ba wàcc la mu nekkoon ñëw fekk na ci li ñu ne ñun américains yi léegi ñun ñoo jiite àdduna bi ñun ñoo moom àdduna bi jamono jooju nag dafa am kenn ci ñoom ku tudd Samuel Huntington daal ni George Bush moom conseiller George Bush la woon ni ko gañe nañu communiste yi suñu noon la ñu woon waaye nag des na beneen noon boo xam ni war nañoo jàkkaarloog moom boo xam ni mooy bi gën a compliqué parce que Union soviétique ñoom xam nañu fa ñu dëkk xam nañu seen lim xam nañu seen i pexe waaye noon bii nga xam ne nag mooy noon bu bees bi ñu war a jàkkaarloog moom moom xamuñu fu mu dëkk xamuñu seeni lim xamuñu seen i pexe te faw ñu wut pexe xeex ak moom ñu ni ko noon boobu ban la mu ni jullit yi la ñu ni ko léegi naka lañuy ñuy def ba xeex ak ñoom mu ni ko léegi dafa yomb du ñun ñooy jóg di dal ci ñoom waaye dañuy jaar ci ñenn ci ñoom pour dal ci ñeneen ñi moo tax kon nañu def très attention c'est-à-dire que ñoom bokk na ci seen projet nañu jaar ci ñenn ñi dal ci ñeneen ñi ci des motax yeen say nga and ak kenn taxaw ni ma ngi xeex ak ca dess fekk ne comprendre ne am na ñu indi division ci seen biir dal ni nañu jaar ak ñi ci ñi xex ak ña ca dess jëlal exemple Sénégal Sénégal dafa nek dëkk bo xamni jigen jaay bopam suñu ay yoon nangu ngay jaay sa bop da ngay am carte dangay am carte buy firndeel ni yow da ngay jaay sa bopp jigéen nga da ngay jaay sa bopp faw nga am carte te pour nga am carte boobu da ngay am dossier boo xam ni da koy defar nga defar dossier bi kayit yi ñu la laaj yëpp nga indi ko ba mu mat indi sa photo ñu defal la carte jox la ko nga téye carte boobu di jaay sa bopp fu ñuy ñëw di ramas ñuy jaay sa bopp boo wanee sa carte rek ñu bàyyi la yow daan la yow da yow am nga carte normale nga war ngaa jaay sa bopp ñu loolu Sénégal lu mu nangu la ci suñu suñuy ay loi da koo nangu léegi ñooñu di jaay seen bopp dañuy fay l'impôt parce que képp kuy liggéey ci réew mi liggéey bi am la muy meñc da ngay fay impôt sur le revenu et sur la personne physique dañuy fay impôt impôt boobu ñuy fay dañ koy daal di jël dugal ci trésor public donc dañ koy dugal ci jiba réew mi duñ ko berde duñu ni kii kay jaay boppam la wàllam la nañ ko teg fee déedéet dañ koy dugal ci jiba réew kii jaay sàngara dafay fay impôt dafay fay licence xaalis ba la muy meññ dañ koy jël dugal ko ci trésor public maanaam ci koppar bi nga xam ne ñun réew bi yëpp ñun ñoo ko bokk fa lañ koy dugal sëriñ bi bu wootee gàmmu wala màggal nguur gi jël ca gafaka réew googu daal di ñëw jàppale ko ci ceeb ak diwlin na jàpp ne wàllu ñooña ña nga ca loolu mooy dëgg loolu mooy li am loolu mooy dëgg man mii nga xam ne damay liggéey weer wu jot nguur gi di am lu ma fay naa jàpp ne lañ may fay wàllu ñooñu ña nga ca parce que kenn du ko ber dañ koy jël boole dugal ci gafaka est-ce que kon gisu leen fii ni loolu ma waxoon léegi ni nañu wut pexe jaar ci ñenn ñi dal ci ñeneen ñi est-ce que gisu leen ko ci. moo tax il faut ñu def nànk il faut ñu def nànk il faut ñu xool yenn saa yi da ngay jóg rek ñu diw laa àndal fekk ne xamoo la ca ëmb la ca ne la ca ginnaaw ak la ca la ca ànd yépp ndax loolu yépp kooku taxaw na xeex ko ndax loolu yépp kooku dindi na ko ci programme am loolu yépp duñ ko seetantal yenn saa yeneen la ñuy jiital donc loolu laa bëgg a wax ni dafa am solo ñu boole ko ci ni ñuy defaree suñu pénc fa ñuy jublu ndax ñi ngi xool bu baax a baax a baax ci kooku loaaye ya muy indi ndax ànd naag suñu ay gëm-gëm ndax ànd naag ni ñu bëggee defaree suñu pénc loolu dafa am solo parce que cheikh amadou bamba loolu la xeex ñun waruñu mën a taxaw ci beneen tànk budul tànk boobu tubaab bi dafa ñëw ni nii laay doxalee penc mi par la force mu ni ko doko ko doxalee nii par la force jàkkaarloog moom tubaab bi ni ko kon noonu nga def dinaa la fàtt tubaab bi lim doon jéem yépp ay yóbbu ko mauritanie yóbbu ko gabon yépp

donc il faut ñu xol ñom dañu gëm ne faw ñu jaar ci yenn jullit yi pour xex ak yenen jullit yi loolu bu ko faté ni pexe la bu utiliser dañuy jaar ci ñenn ñi xex ñenen ñi pexe la bu utiliser légui nak lolu il faut ñukoy euh xol bu baax donc idéologie yooyu mom mo amone mo am sax ba jamono ji may wax mais légui dañuy dem ba jëmi jamono ñu ni Euh, nit ñi daal boo leen di wax ay capitalisme boo leen di wax ay communisme ay socialisme daanaka duñ ci gis seen bopp léegi li nga xam ni moo gën a wóor mooy waxal ak ñoom lu wóor lu leer ni man boo leen ma joxee réew mi ñii laay doxalee penc mi loolu la tubaab di wax offre politique maanaam dangay ñëw man bu ma ñëwee daan tuubaa waa Touba laa bëgg a waxal damaa bëgg waa Touba jox jox ma seen seen seen seen carte ñu wooteel ma waaye damay wax ak waa Touba lu leer dama naan leen bu fekkee ne wooteel ngeen ma. réew mi man nii laa koy doxalee léegi faaleetuma ay communisme ak ay capitalisme ak ak libéralisme nii laay doxalee réew mi nii laa koy doxalee ci koom-koom bu ñu ne koom-koom dafa am ay pàcc dafa am mbirum mbay sàmm napp maanaam loo xam ni ci réewu kaw yi lañ koy def dafa am ay mbirum usine am mbirum jaay mbirum jënd yoo xam ni ci dëkk euh, taax yi la gën a bëri euh, euh, dafa am lo ñoo xam ni dañuy def ay service ak ay affaire loolu yëpp tamit ci biir koom-koom la bokk bu ci nekk naka laa koy doxalee. li jëm ci mbirum loi maanaam ni ñuy tërale ni liy doxal réew mi bu leen ma bu ngeen ma falee nii doxalee réew mi ci ay charte nii laa koy doxale est-ce que code de la famille bi nga xam ni moom moo am actuellement Sénégal te sëñ Gaynde Fatma nekk wéyjuru euh, suñu sëriñ suñu xarit sëñ laat mi toog taxawoon xeex ak code boobu ni du fi am tey jii code bi nekk fi di doxal ni ñuy doxalee suñuy kër maanaam nga xam ni tey jii yow boo soxlaa sa soxna guddi sa soxna si lànk ni maa lànk nekk ak yow ci guddi gi nga wuti pexe ba sëy ak sa soxna bu xëyee suba dem porter la plainte daan ni danga nga koo sàkku bi daal lay tegi daan ni da sàkku sa soxna loolu mi ngi ci suñu code de la famille bii yenn saa dama naan xanaa sëriñ si xamuñu li xew lu doy waar la te loolu sëriñ si dañoo taxoon ay jamono ni lii du fi am loolu moo fi am nag. maanaam nga ni sa soxna léegi fase naa la yeewi naa la demal seen kër mu daal dem ca juge ba porter la plainte yow daj teg nañ la daan parce que amoo droit yeewi sa soxna juge bi rek moo am droit yeewi ko loolu moo fi am de sëñ bi loolu moom moo am ci réew mi léegi nag kiy wax ak yow ni la damaa bëgg nga woteel ma ndax yow yaa ngi xool yu mel noonu tëralin yu mel noonu ak charte yu mel noonu fan la ci nar toll ak yow fan la ci nar a jëm ak yow. loolu yëpp dafa mel ni du finalement duñ ko seet looloo indi nag problème politique ci Sénégal lii indi problème politique ci Sénégal mooy la ñu war a seet lañ dul seet léegi la ñuy seet mooy kii taalibe la comme man léegi moom laay woteel mais lu tax sëñ fàllu daan ni woon nañu jàppale Senghor wàcc Lamine Gueye te Senghor nekk catholique kële nekk jullit buñ doon wax ki gën a jege rek Lamine Gueye moo gënoon a jege waaye. liñ doon xool ñoom nekkatul ni kii catholique la ak jullit la parce que nit mën naa nekk lii fekk ne euh, keneen ka moo ko gën a sori ca loola loolu c'est très important il faut ñu def ci nànk Sénégal nag euh, dañuy xaw a xër yenn saay ci nit euh, dafa bokk ak man pas-pas xëy na moom pas-pas boobu gëm na ko dëgg dëgg dëgg bu ko gëmee kon am na lu muy doxale damay wax ci dama doon wax ci waxtaanu màggal gi ne sénégalais ngay gis ko xamni du fay impôt impôt mom pour nit fay ko problème la yeen say faw ñu dam sa loxo pour nga fay impôt boobu waye sénégalais bi moy lank baña fay impôt daa di taal wala mu jël saretam wala mu jëli tankam dem ba Touba dem joxe ji addiya war nañu xolaat lolu man dama lank baña joxe impôt waye dama am pas-pas ki dem joxe ji kon ça veut que ñun penc bi ñu bëgg a tënk mooy penc boo xam ne addiya moo ko téye waaye du penc bi nga xam ni impôt moo ko téye li ma bëgg a wax ni penc bi impôt téye mooy penc bi nga xam ni tubaab bi moo ko fi teg parce que impôt tubaab bi moom moo ko fi tegoon ci ni muy doxee nii tubaab bi moom moo ko fi tegoon sénégalais bi gisul boppam ci impôt boobu nga xam ni tubaab bi moom moo ko fi tegoon maanaam gisul boppam ci penc bi nga xam ni tubaab bi moom moo ko fi rëdd teg ko fi daal ni nii laa bëgg ngeen doxalee li mu gis boppam mooy penc bi nga xam ni moom la sëñ Touba rëdd daal ni mi ñi nii nii lañ ko war a defaree tabax ay dëkk defar ay dëkk defar doomu aadama ya fa ne ba pare sanc lu ay dëkk defar ña fa sanc ña fa sanc continuer mission boobu di defar ña nekk ca dëkk ba moo tax bu ñuy wax impôt organisation cité décentralisation teritorialisation des politiques publiques nañu dellu jàngu ci sëñ Touba li mu bind daal di ko fi bàyyi parce que moom moo ko fi njëkk a bind daal di ko fi bàyyi yu ci bëri yoo xam ne dañ ci xaw euh, dañ ci xaw a am ay problème donc bu fekkee ni politique dañ ko bëgg a commencer teg ko ci waaso léegi tegatuñ ko ci nit ki li mu indi lu mu doon ndax pexe yooyu ma waxoon ndax nit ki mi ngi xeex ak pexe yooyu mi ngi teg loo xam ni daf ñuy bool daf ñuy delloowaat ñun ci suñu diine ak suñu aada ak suñu cosaan yu rafet wala ndax nit ki dafa mel ni ñi li ñu ñële waxoon naa jaar ci jullit ñi xeex jullit ñi ndax ci loolu la ne il faut loolu tamit ñu koy xool bu baax a baax baax boo ko xoolul rek. léegi li ngay jàpp mooy diw de damaa yaakaar ni taalibe la ne comme man diw de damaa yaakaar ne euh, séeréer la comme man diw de damaa yaakaar ne bambara la comme man donc naa jàpp ci lool loolu nag bu fekkee ni dafa dugg ci penc ba yegg ci yenn niveau yi mënul bon nag nit ki il faut mu am yëg-yëg il faut mu am fu mu jokk il faut mu am fu mu pas-pas il faut mu mu mu mu am yëg-yëg ci ki mu bokkal pas-pas loolu moom kenn mënu ko bañ il faut mu am yëg-yëg ci ki mu bokkal waaso loolu mun kenn sañu ko bañ waaye nag Sénégal dafa am lu mu dépassé parce que bu fekkee ni réew moo xam ni dañoo ne ci ab lim téeméer yoo jël juróom-ñeent fukki ak juróom ay jullit lañu te ñu toog fat ñaar euh, vingt ans donc ñaar fukki at koo xam ne di jullit di ñu jiite kon dafa mel ni weesu nañu yu mel noonu nii ci waaso bii laa bokk wala ci mel ni mais daal li ci ëpp solo foofu laay tëralee euh, kàddu gi li ci ëpp solo bu fekkee ne bëgg nañu politique bañ a indi féewaloo ci suñu pénc politique daal di ñuy delloo ñu nekk benn bopp nekk benn njaboot. bi njëkk mooy ñi nga xamni ñi ngi dem jublu ci politique bi ñi ngi and ak diw ak ña nga ànd ak diw nañu saytu bu baax diw bobu lamu andi indi lan la ci ñi ñuy les pinch surtout ci loi yi encore une fois surtout ci charte yi nañ ko gëstu bu baax nga xamni yow ki ngay jappalé jappalé woko ndax limu mu nekk jëmmam rek mais yang koy jappalé ndax limu indi da nga yaakar ni lu lu luy defar la luy ñongal pinch la nga ànd ci benn bobu dafa nekk lo xamni dafa am solo lol bi nga xam ni moom moo ci moom moo ci topp politik bu fekkee ni dañoo bëgg politique daal di defaraat suñu penc rafetal suñu penc ba njaboot ji nekk faw ñu ci man gëmuma ni ki nga xam ni dafa nekk politique daf ñoo war wax ay référence am mooy tubaab yeeg mooy américain yeeg yu kenn xamul faw ñu dellu ñun ci il faut ñu dellu ci li nga xam ni ñun ñoo ko moom moom suñu mandarga te loolu ñi nga ni ñoom ñoo nañ ko rëddee woon mu taaroo woon noonu faw ñu téye ci loola gis nga man damaa dem Gabon maa ngi koy fàttali sëñ Laat mu ngi nii dama dem Gabon ci université bu Libreville am cours bu ma fa doon def ma daje fa ak benn professeur économie boo xam ni Gabon la ne waa Gabon yëpp dañ koo naw ci xam-xamam ci mbirum koom-koom mu ni ma yow foo bàyyee ma ne ko Sénégal laa bàyyee mu ni ma xam nga Serigne Touba ma ne ko am naa lu ma ci xam mu ni ma man dey du ma catholique ma jullit samay diine maam laa gëm ay xërëm lañu ñu gëm ba léegi waaye nag murit laa moom ne boobu mosul ñëw senegal ma ne ko waaw léegi loolu naka la mën a nekkee mu ni ma ñaar moo tax ma ni la murit laa bi ci njëkk mooy damaa jóge montagne 5 fa nga xam ni fa la ñu indi woon sañ tubaab bi mu ñëwee Gabon daal di dem wiir wiir jël gab jël bato bi nga xam ni euh, bu xaw a niroog bu xaw a niroog moom bi mu jëloon ma ñëw wiir wiir nee na ba ma egsee wiir wiir xaw naa dee ndax damaa neer febar febar bu metti ba bama fa yegge dañ ma yóbbu hôpital fajj ma ay fan ma dugaat ci bato wutali wir wir bama yegge dañ ma ne xana da ngay xaru parce que yoon wi kenn duko def ben yoon geej gi dafa jax ba nga xamne ku ci dugg même boo dul neer bo ci duggee da ngay neer ba bo exé da ngay febar muni kon man munuma comprendre lutax ben nit bu tuddu sëñ touba ñi duggal ko ci bato ñene kon ci bato ba ku ci sonu lot daal di dem di noppalu mom ñu bayiko mu nekk ci mu jóge montagne 5 ba lambérene yegg ñëpp foog ni faatu na mu ni jox leen ma xalima ak ma daal di bind sargal sama borom mu ni du nit donc loolu mooy benn bi dex ma nekk murit mu ni bi ci des te loolu moom moo ñu gën a man looloo ma gën ruslo bi ci des mu ni dafa jël dafa gis masalikul jinaan boo xam ni dañ koo bind ci français mu ni mu jàng ko nga ni du julit du catholique waaye murit la nee na bi mu jàngee masalikul jinaan bind bind ci français mu ni ma ma gis ni man koom ma gis ni sëñ Touba mii nga xam ni moo bind Masaalikul Jinaan ña ma ña nga xam ni ba ma demee France falaa demoon ñu may jàngal économie muy ñoom Adam Smith ñoom David Ricardo ñoom Joy Mernan Keynes mu ni ñooñu fa ñu yem moom fa la sëñ Touba commencé jëm kaw mu ni léegi mu ni léegi dama jël dama jël ay xët dama jël ay xët dama jël ay ay passage ci Masaalikul Jinaan di ko jàngal man samay ndongo ca biir université ba ma ne kon ñun tumranke nañu Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum nee na tumranke mi ngi tàmbalee ca ba nga demee ba xeeb sa bopp kon faw ñu bañ a xeeb suñu bopp dellu ci li sëriñ bi jàngale tënk ci suñu bopp defar ci suñu politique bu fekkee ne dañoo bëgg suñu askan bu fekkee ne dañoo bëgg suñu njaboot mbooloo maa ngi jéggalu di tuub ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu